asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 19 mai 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ni xëy doore ko yëglikaay bi nag tey ka mu xëy dalal du kenn ku dul manageru Boy Niang ñu naan ko Burxaan Wàdd mu Pikine Burxaan nag moom ba mu xëyee ka xëy waxal du kenn ku dul Balla Gaye 2 la Lion de Guédiawaye manageru càppaaculi ba daal la mu xëy wax lenn la nee na diggante Balla ak Boy Niang moom jàppal lenn ay étincelle la maanaam ay tàkki-tàkki jinni sax soo bëggee dégg-dëgg da fay gis ñu ne ko déet mu ne maa ko wax te Balla itam la ko Burxaan xamal daal lu gàtt la ne ko sa combat ak Boy Niang moom mënoo koo invité mënoo jaar fenn ba bëriwu ngeen ko ndax nag demande social la askan wi ñoo koy wër Bourkhane Wade day wax du samay wax nee na ko la am ba des daal yow Balla jàppal ne dool la dëggee numéro 2 tey te doo ko suba te li nga war a def mooy takku ñëw am fu lay ñëw jàkkaarloo xale bi jël ko bëri ak moom Bourkhane Wade xëy tey di wax loolo mu mel ni kii nag ñoom ñooñ nga xam ne ñooy ay VIP bu ñu ñëwee yëglikaay bi di sunu làmb daal xamal nañu ne bu bëggee dégg dëgg day saison ren bi moom ah maanaam saison lay doon boo xam ne daal kenn ci ñoom VIP yooyu takk ngem wàcc ci suuf ne da ngay bëre yëglikaay bi ñëw na wan ñu ki nga xam ne mooy Modou Lo de des arènes Eumeu Sène ak Tapha Tine mel ni ki nag moom ren moom VIP moom collectivement maanaam maanaam daal ñoom ñëpp kenn du ci wàcc ren takk ngem bëre sunu lamb xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom seen rakk la moom itam day mu nga caw yoonam di dem moom takk na ngeen bëree ba daan moo tax yëglikaay bi xëy tey ñëw ci moom mooy Franc bu Parcelles Mbooloo Franc nag yëglikaay bi neen mu ngi ci neuf combats neuf victoire ki nga xam ne ni nag mooy nekk dixième bi la ñuy xëy day samp ca ab laaj di ko laaj ki koy jël muy dixième combat Franc daan ko yëglikaay bi ne kan mooy nekkat fukkeeli victime bi ngir Franc yëglikaay bi xëy tey ñëw wax na ko ka nga xam ne nag moom la gox bokkal gox ca parcelle muy garga de moom mu nga xëy di wax ci yëglikaay bi di sunu làmb la mu xam ne daal nga xam ne nii daal moo Mori dóor daal seen écrit booba dana am na fa ay xale yoo xam ne day ñoo sax ëpp sos bëre dàq koo bëre maanaam garga de moo xëy tey di wax lu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne xëy na ci yëg likkaay bi di sunu làmb di fa wax mooy Assane Ndiaye di ab promoteur borom Baol production la mu xëy nag di wax moom na nga xam ne ni daal noonu lañ war di jariñoo arène nationale ba ca xëy di wax wàllum location ba Assane daa jàpp ne daal deux cinquante mille ci location deux cent mille ci sécurité nee na doy na te rawatina tamit journée yi nga xam ne mooy journée espoir yi njiital Baol production daal loolu la xëy wax que jiital nag président ka nga xam ne moo jiite école gré moom muy Malick Ñing xëy na ci sunu làmb di wax nag nee na li am ba des daal na ko ñëpp jégg dégg te xam ko maanaam se lamb ji te ñoom ñu ñàkk leen cee boole nee na loolu moom kenn mënu ko te itam bu ko kenn xalaat Malick ñi ngi mu xëy tey wax lu mel noonu fa nga xam ne mooy ca sunu làmb keneen koo xam ne nii moom ab écrit la jiite ñu koy wax Cheikh Anta moom nag moo jiite écrit ba nga xam ne mooy écrit Bawol moom nag yëglikaay bi di sunu lamb xëy na tey wan ñu ko Cheikh Anta nag moom la ko dal mooy fa nga xam ne daal mooy ci réewum benn fa demoon di jënd ay bagages yoo xam ne ci wàllum commerce la ngir di ko di ko jaay mel ni ki nag moom corona ba moo ko fa tëj rap mënatu la ñëw fi nga xam ne mooy ci réew mi moom président e écrit ba nga xam ne mooy Bawol moo tax nag fi nekk nii mu ngay yuuxu di woote wàllu ngir ñu dimbali ko ngir mu ñibbisi fii nga xam ne mooy ci réew mi moom Cheikh Anta Diouf président écrit écrit Bawol keneen koo xam ne ni moom waras na ko gën a dimbali mooy Jules Baldé Junior yóbbu ko ci Europe nag ngir faje ko ndax da mel ni daal fi mu nekk ni moom ay mbiram yóbbu ca Europe donc moo ci des donte ñi nga xam ne ne moom lañ dëkkal wala ñu dëkk ak moom ku ci ne jéem nga caa jàpp waaye daal daa mel ni solution ba moom mooy yóbbu ko bitim réew maanaam réew yi Europe ya faj ko fa ngir mu mën a wér ba tey dañuy des ci sunu làmb ak ko xam ne ni moom dafa ñëw tey wane beneen xar kanam muy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay baa xëy tey wan ñu ko moo du àllaaji daal la génne maanaam kaala gu xonk ca bopp ba ak jàllabeem bu weex tàll mel ni àllaaji boo xam ne daal aji na ba pare moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal xanaa kon léegi moom El Hadji Omar Sakho la sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko ma jóge fa moom dem record record moom la ñu fa xëy di fa wax mooy roi des arènes bi depuis 1984 ba moo ci numéro 1 ko ci raw loolu la xëy tey samp ko ab laaj nga xam ne mooy Abou Ndour am na ñoo xam ne nag joxe na seen sa joxe nañ ca seen ay xalaat bu dee Tapha Guèye deuxième Tigre Fass ba moom moom jàpp na ne benn roi des arènes moo am ci lamb ji mooy ki nga xam ne nii moo di Manga 2 Père Max Mbargane moom gis am daal ne na ñu ko ci gën na ki nga xam ne moo di Manga la Yékini ak Tyson bu dee Omes Diagne la moom di Omar Diagne la mu gis daal moom directeur technique u Dakar ba daal jàpp na ne ki nga xam ne moo di Yékini mooy ki ko ci gën a marqué Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi moom ne na ñoom ñooy ñuy limu ñëpp kenn ku ci ne daanoo ñëpp Boy Kayre moom Yékini la gis ne na mooy number one Abdoulaye Dembélé bu sunu làmb ba tey ci record moom tamit daal ñamu cité ne na Yékini premier ki nga xam ne moo di Tyson deuxième Balla Gaye numéro deux la jox troisième place ba moom Dembélé bu nu ba continuer ba tey fi nga xam ne moo di record rubrique bi nga xam ne mooy le ramadan da tey nag moom Modou Anta bu Thiès Baye Fall ba la ñu xëy dalal mu nag moom wax na ay dëggam moom ne na donte koor ga mu ngi cay jàpp ñi ca wàllu ndogu yaag yu mel ni ki doon di dimbali ñëpp ci ndogu yi nag loolu mooy jëfi Baye Fall waaye nee na woor moom jàpp na ne moom Modou du ko def deful maanaam daal wóorul ndax moom ab Baye la Modou Anta loolu la xëy tey di ko wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record waaye leneen loo xam ne moom dañu koy wax muy lu neex a neex muy ka nga xam ne nag moo di Fall di caméraman ca Leewtoo TV dib monteur faal nag takk na jabar samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ca jàmmalaay mel ni kon taalibe Baay Ñas ba dem na ca layen ya ñu may ko soxna mel ni kon réew mi daal noonu lay tëddee li am solo daal mooy ñu bëggante jàppante te yàlla tax waaye faal sëy bi yal na am barke yal na ngeen am njaboot gu am barke ndax nag yaru nga teey nga waaye faal na nga yërëm sa jabar de te na ko bëgg jigéen ku ko bëgg da ko war a yërëm Moussa Fall asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñuy suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa tey nag le mardi ah 19 mai 2020 sunu làmb la ñuy xëy tey doore ko parce que moom moo xëy ñëw tey daal ki nga xam ne mooy le manager de Boy Niang ñu koy wax Bourkhane Waat Bourkhane nag moom bi mu xëyee tey Balla Gaye daal la xëy tey sampal ku ndënd ne na ko li am ba des daal sa digganteeg a ñëw ngeen bër te jàpp na moom bu keroogee moom tàkk tàkkul jënd na fa te itam xamal ko bokkoo ak Lac de Guiers numéro 2 moo wax loolu mel ni kon ndax combat bu fi mu nekk nii saa yu ñu xëyee wax ji di a yokk coow li di gën a yokk mel ni ki nag lamb moo tëddi noonu lamb a ànd waaye la solo ba am solo daal mooy Balla ak Boy Niang moom xam naa ne ñàkkul ne bés dina ñëw ñu laale parce nag coow li bëri na fi mu nekk nii bu baax a baax a baax waaye loolu mooy liy dundal làmb parce que vedette bu ndaw bu ne nañ vedette bu mag lay dundee lool nag moo ci ne waaye ñoom ñaar bu ñu bëree ah foofu dama fay taxaw li am solo xam na bis bu arbitre suuf lay génn seen diggante ah da nga gis lu doy doy waar ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang waaye daal yàlla baax na promoteur yaa ngi dégg

location stade bi ak li moo jàpp ne dañ ko war a wàññi entre deux cent cinquante ba deux cent mille ci côté sécurité bi côté location bi loolu ay waxam la muy loo xam ne ni daal arène bi moom waras na ci gën yi parce tamit lamb ji metti na lool ci ñoom franc ñëw nañ neuf combat neuf victoire kuy nekk dixième victime bi loolu nag nañ ko déglu ak promoteur ak ki adversaire am ñëw est dana ko daan pour nekk di am di sa victoire wala déet loolu moom moo jiite président école léegi écrit yi moom nag nee na làmb ji daal jàpp na amul ku ko mën a diriger te ñoom duñ ci bokk moom loolu la wax loolu tamit yaakaar naa ne warees na ko mën a nangu parce que nag yow mi jiite écrit yi jiite école yi soo waxee loolu yaag ña nga àndal defe naa itam ñoom ñooy kilifa yi kon ñoom kuy diriger rek faw nga boole leen ci mel ni ki nag seen kuréel googa moom am na ci koo xam ne nii moom bu ñëwoo dimbali ko ndax nag mu nga tagg témbi fa nga xam ne mooy ca beneen ñu koy wax kon defe naa itam ñu ngi ñaan daal képp ku ci man dara ak fépp fu doomu sénégalais nit bëgg ñëw ci réew mi ñu jàppale la ngir nga ñëwaat ci sa am réew parce que nag loolu moo gën a dal xel su ma fa jógee damay dem record record moom mbirum roi des arènes nag ci la ñu xëy tey ñëw wax ci ak ni depuis 89 ba la yëglikaay bi xëy tey ñëw daal maanaam wala kat waaw ñëw na ci daal waxtaan ci ak ñu ku ci ne wax nga ci sa xalaat dafaa gi jàpp ne ne benn euh, roi am mooy mànga yaa ngi dégg père Max mu wax nañu ko ci gën a marqué muy mànga Tyson ba ci Yékini Abdoulaye Dembélé moom ba Yékini la cité Tyson ak Balla mel ni ki daal ku ci ne jox nga xalaat waaw loolu nag mooy àddina ku ne ak na ko gis waaye ñoom ñëpp daal am nañu mérite ñoom ñëpp am ni ku ci dégg roi rek am nga mérite parce que liggéeyoo ba nekkul di nelaw ba ñu ne la roi des arènes dafa am loo def ba dégg roi des arènes yaa ngi dégg kon ñi ko mas a doon man maa ngi leen di féliciter man Babacar actuellement ki ko doon tamit moom la ñu reconnaître que moom mooy roi des arènes muy Modou ñu ko ciy féliciter que itam du lu yomb te du mbër yëpp ko dégg yaa ngi dégg kenn koo xam ne ni moom ñëw na ci koor gi Modou Anta bu Thiès moom ku ne xam na ne Baye Fall la ndax Medina Fall la dëkk di ab Baye Fall xam ne na daal moom koor gi ah du woor parce que Baye Fall la waaye nag mu ngay dimbali ñay woor waaw loolu tamit am na si droit yaakaar naa ne ku nekk rek ca la nga gëm ca nga mën a dox kon ñu koy nuyu di nuyu waa dina Fall yëpp moom Modou Anta waaye tey nag fi may tëjee mooy contentement la rek ak ak cant parce que Fall mi nga xam ne day nit sama ginnaaw di ma caméral Fall mi nga xam ne day day day monté vidéo yi revue ngeen seetaan moo koy monté Fall moomu nag moom moo doon takk soxna samedi passé ca jàmmalaay ma koy ñaanal yàlla sëy bi yàlla na barkeel parce que xale bu yarula di taalibe Baye Niass di ku baax waaw dem na laayeen yi may ko soxna loolu mooy Sénégal kon encore une fois rek di waxaat que ni mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye gis nañ fan loo xam ne nii rafetul jekkul te itam pour man jaaduwul parce que yaakaar naa ne ku nekk war nga mën a jàpp kilifa ga nga gëm yaa ngi dégg te du tere nga respecté geneen kilifa ak jàmm ndax nag koo bëgg mu naw sa kilifa da ngay bëgg da ngay naw kilifa parce que wolof ne na koo bëgg bëgg bëggam mu bëgg sa bëgg-bëgg waaye ko bañ bëgg bëgg sañ na loo bëgg mu ne bañ naa loolu te defe naa réew mi warul tëdde noonu mam Bamba mam Maodo mam Limaamu mam Baye ñas ak mam Bu Kunta ak Seex Ceneba ak ñoom ñëpp benn lañ yàlla lañ daan wooteel di ko xeexal di ko jaaral ba samp fi tey lislaam yaa ngi dégg kon defe naa ñun ñu nekk ay taalibi jëmewee ndigal di ko jëfe te bàyyi ay tere moo te wegante waaw te wegante am na solo nañ weg kilifa yi wax mënta tax ba la ne Tuubaa wàññeeku wax mënta tax ba la nekk Tiwaawoon wàññeeku wala nekk Yoof wala nekk Njaasaan wala Laayeen wala fu mu ci mën a doon wala Medina kon nañu joxante cër même chrétiens yi ñu bokkul diine sax dañ leen war jox cër parce que ay doomu aadama lañu Sénégal ci noonu lañ ko war a taxawee di ci dox di ci wax waaye ku nekk di def sa ay vidéo ku nekk di wax sa ay wax wax di wax wax ju ñaaw wax ju ñaaw yow mi koy wax war nga toogaat ba benn moment nga xool sa bopp xam ne lu ñaaw amul njariñ nañu wegante te ñii ay nit yàlla lañu ñii ay nit yàlla lañu nii am nañu cër ba pare parce que ba def jotee dañoo def ba wax jotee dañoo wax seen njaboot gi fi nekk itam ci loolu lañuy ñuy wéy di ci continuer yaa ngi dégg defe naa ne kuy déglu band yi maam Abdou la mu daan wax di déglu sëñ Cheikh la mu daan wax di déglu sëñ Abdoulaat la mu daan wax wala sëñ Fallook ñeneen ak ñeneen wala maam Baye Niass ak ñoom ñëpp sëriñ Babacar Sy ah ay Seydina Isa ñoom ñëpp di ay kilifa yoo xam ne ay nit yàlla jeex ci yàlla pire yow mi di ab taalibe defe naa ne wegal la nga ne waaye itam joxal sama morom cër ba mun ndax réew mi nag des koo bokk waaw ay nit a ko bokk ay askan ko bokk ay waasoo ko bokk ay tarixaa ko bokk kon nañu joxante cër sukk nag du tere yóbbu say oom yaa ngi dégg di ñaanal ñëpp jam di balu ñëpp ak di nuyu Awa Diop depuis Touba Amina ñu ngi maa ngi koy nuyu bu xarañ lu Asi Diagne di nuyu Elas bu amaa di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV di balu ñëpp ak Ngagne Sow ma la fàtte depuis États-Unis waaye liiru jaan mention spéciale di nuyu tamit Mor Ndiaye sa doomu ndey Mor kontaan ci yow bu baax a baax a baax lamin tamit kontaan na ci yow.